apa-apa. Upaderu. Naar. Ah. Naar de A. Ah. Naar de A. Ah. Naar de A. Naar de A. Pedegur. Parat, parat. Virit. Barak, barak. Virit. Barak, barak. Virit. Barak, barak. Ja, nee. Naar, naar, naar. prétend sokku fa nur naan ko farat wóor farat wóor ma boobu Pape Cheikh. yaa tay de yaa tay de yaa tay de. bi demee di sara. waaw si digg aar bi. la a ah. xale bi takku na ba tam kit. bàkk yéenante bi ba dëgër fu mu maa ngi naan faraax bàkk yéenante bi single bees bi Pape Cheikh Diallo vur bàyyi naa ko daal sa loxo yow masalla ayo gaaf waaw daf loxo boo laal loolu am moom bàkkee bàkk yéenante bi masalla laf cat dafa yàgg du tay maa yow ba ma xam dafa yàgg boobu fecc ko sax bàkk yeneen bi euh, ma xam ne bu yàgg macha allah sama xaaj euh, bitim bu sama mag fenn kayta ñoom day fay dafa yàgg loolu tay waaw lu yàgg loolu dëgg la yow sama numéro waaw waaw ndeysaan dëgg la ak biti biti mbuub bu war faja ñoom cama waaw dafa yàgg loolu du waaw ñoom si sa